wi nga xamante ni yëpp ñoom ñoo seq wàllu napp ci Sénégal tey ñu tànn ñëw daje ak euh, ay sénégalais yu am solo yu bëgg réew mi bëgg ëllëgu réew mi daje ci ak kuréel goo xamante ni liñ ci yittewoo leen rek la mooy nan la ñuy def ba sunu waax yi ñu mën koo sàmm sunu géej gi ñu mën koo sàmm ba caxat-caxatee bi nga xamante ni moom lañu ci nekkee at yi yëpp ñu romb ci ay contrat léonin loolu ñu ne dootu fi amati ñun dañu ñëw tey jii pour daje ak ñoom pour déglu leen pour signer ak ñoom ay engagement yoo xamante ni ji jël nañ ko lu jiitu ñuy daje ak ñoom. loolu moo tax ñu nekk très à par rapport ak charte bi nga xamante ni moom lañ doon signer tey waaye dafa am loo xamante ni fokk mu dellu siwaat ci Sénégal te dafa tumranke ñun loolu lañ doon jëmmal tey muy kàddu gor. ni ñu koy waxee jamono bu ci nekk te bëgg sénégalais yëpp xam ko mooy duñ ci wax lu ñu mënut duñ ci wax lu ñu narut duñ ci wax lu ñu xamut. engagement bu ñu ciy jël rek day fekk ne mën nañ ko jëmmal. ne bu ñu ñëwee nekk président de la république géej gi ak ñi nga xamante ni ñoo ciy yëngu dinañ am tawféex dootuñu nangooti ñuy rey napp ñi nga xamante ni ñooy napp ci ay licence de pêche suñu diggante ak beneen réew bu mu mën a doon dootuñu nangooti les navires de pêche jóge ci yeneen dëkk di jël gën di ko yóbbu loolu dootuñu ko nangooti ñu nangooti contrat yoo xamante ni kenn xamul ci yan condition la ñu koy signé loolu tam dootuñu ko nangu donc loolu dafa nekk engagement yoo xamante ni jël nañ ko te fas yéene koo def ba nga xamante ni lépp lu fi contrat bu keroog bu ñu faloo lépp dañ koy dakkal daal di def taxaw seetlu def gëstu def càmbar ba xam li ci yoon ak lu dul ci yoon liñ ci war a soppi yëpp soppi incha allah. kontaan trop ci journée bi euh, tàmbalee ko Wakaam daje coalition nationale pour une pêche durable waaye bi ñu daje Wakaam mel na ni daje nañ ak waa Yoff waa Ngor waa Cambérène waa Hann waa Bargny waa Jiwolo waa Kayar dëkk yëpp yi nga xamante ni dañ napp ba ñu fa jógee nag daal di dugg def ay ziar ci kër maam Seydina Limaamu daal di ñëw fi nga xamante ni mooy ci Seydina Isa Sénégal li mu soxla fii ñu toll mooy jikko yu rafet Sénégal li mu soxla fii mu toll mooy njub Sénégal li mu soxla fi mu toll mooy yërmande te loolu boo ñëwee ci kër gii nga xamante ni fi lañ dugg tey mooy dars yi nga xamante ni moom nga fiy jël si mooy leçon yi nga xamante ni moom nga fiy jël si yërmande boobu nag moom lañ fekk tey kër Seydina Limaamu waaye yërmande jooju it moom la ñu bëgg képp koo xamante ni bëgg ngaa jiite réewum Sénégal ñoo ngi ñaan sunu borom mu def ci sa xol ak ci sa xel ak ci sa ruu yërmande ju mat googu kon ñoo ngi sant bu baax di sant sénégalais yëpp di leen jox dig daje ëllëg fa fële nga xamante ni moom mooy Rufisque incha allah di sant bu baax jërë ngeen jëf.